jërëjëf waaw man kay jombi naa bi ma fa gisee seen réalisatrice bi muy tëgg sabar di Fatima wala du Fatima bi nekkoon ci Kutaaso ah léegi sabar lay tëgg moom fi mu mujjee baaxul de nekkoon réalisateur dem division mujjee ci ambiance tëgg sabar waaw yaa ngi ci buntu télé bi <laughs> de damay foo rek na ngeen def nag waa kay waa jërëjëf mbokk yeeg xarit yi di leen nuyu te di leen ziar ñu amati mbégteeg bànneex jàkkaarloo yéen ci seen biir émission bu mag bi nga xam ne fii lay leere tey nag ma am fi contentement bu bag di nuyu monsieur le kii ministre Idrissa maa ngi lay nuyu. waaw man kay du ma ministre danga daan responsable <laughs> li kuréel bu bees bi nga xam ne moom lañ ma fa waaye kay ministre dépassé naa ko. dëgg la. man di lay nuyu bu baax. waaw maa ngi lay fay dégg naa la kay yow kay laay laaj question bi nga may laaj rek <laughs> waaye kay fay naa la. waaw Idy boo gisee nag ñu invité la fi ñu invité la ci suñ palaatoo gis nga li nga xamante ne fi mu ne moo xew nekk actualité ci dëkk bi muy doomu réew mi nga xamante ne ñu ngi des ci li nga xamante ne mooy ndox mi ani ban jàngat nga ci am. waaw loolu dafay am. Mhm. jamono bu nekk ak la cay xew. Mhm. ak waxtu bu nekk ak la cay xew. Mhm. waaye sama patron. de son excellence. monsieur président Macky Sall alaaji Macky Sall mi ñu dénk Marème Faye mhm. mi nga xam ne moom moo ko indil Amadou ak Mohamed. dëgg la <laughs> waaye tamit mooy magu Alioune. Mhm. di Gora Mansour. dëgg la patron Idi sama patron yàlla na fi yàgg te wér. moom daal lam ca wax daal laa wax. lam mhm. ca waxul waxuma ko. la lam ca bëgg laa bëgg lam ca bëggul bëgguma ko. ndax kenn du ma jaxase ak moom sama diggante moom comme cere ak soow. dëgg la ànd jaxase naan wara a ànd tuur naan rek yaa xam looy def. waaye mooy cere maay soow. Mhm. Sénégal suukar buñ ko jaxasee rek mën koo <laughs> xanaa neex <laughs> ma foog yow tuuti. ndikete da ngaa xorom nag waaw weesu naa xorom <laughs> waaye ci biir loolu kon xanaa pare nga pour ànd ak xale yi nga xamante ne bii nii ñooy dugg ci biir ndox mi sensibiliser leen indiwaat leen ndaxte yow ëmpale woon ne fi mu nekk nii ci sa post bu bees bi war nga cee mën a nekk nag ndax yow nee nga fi mu nekk nii Sénégal rek la ñor lépp loo xam ne askan wi da nga ciy soxla yow pare nga ci loolu moo la dugal ci gouvernement bu bees bi xanaa yow pare nga fi mu nekk nii pour def loolu. xanaa déggoo tontu bi nee naa la sama patron lu mu bëgg rek bëgg naa ko. Mhm. man kay da nga man yëg nga sa patron def na lii am déet. Mhm. waaye man lu sama patron bëgg loolu bëgg mhm. fu mu xool foofu laa xool mhm. lu mu joxoñ moom laa joxoñ mhm. lu ma laaj loolu laay def lu ma sant lool laay tontu ndax ginnaaw yàlla ak bi nit ku nekk da ngay am sa kilifa dëgg la d'accord maa ko mag ci at te yàgg naa doon patron te yàlla dëppaat mbir mi mu doon sama patron xam nga nekkoon patron Macky albatu ko yàlla def mu doon sa patron da koy nangul ndax ci saaru alxuraan am na fu yàlla di waxe ci alxuraan. waaw ne nit ki na nangul nitam. Mhm. nit ki. Mhm. bu ma jëlee daraja jox ko nit. Mhm. man maay xool ki ma neex ma jox ko daraja. yaa ngi may dégg soo ko nanguloo yàlla suñu mhm. borom mhm. dana xam ne ne nangul nga ko li nga xam ne mooy dogalam waaye boo xeexeek moom ci loolu mhm. yàlla yëkkati kooku suufeel la waaye nag la sa patron décidé li nga xamante ne bi comme que fi mu nekk nii da laa teg ci wetam li nga xamante ne mooy wàllu gaal gi ci la xale yi dugg ñu bëgg nag nga daal dugg ci li nga xamante mooy gaal gi boo demee ba ci fi nga xamante ne bi booy xool foofu la problème yi di ëpp li muy amee ci digg géej gi nga sensibiliser ko xale yi indiwaatal leen wax leen parce que am na ci yow yaakaar moo tax bi mu waxtaanee ak état daal yow mii di iddi yow lañ tabb pour nga dem indiwaatal leen xale yi. waaw sama patron nag li mu wax. Ah. ca man maman bi may wax ak yow fii. waaw. ak maman bi nga wax fii fas def loo xam ne même bu ma ko sama patron laajee. Mhm. sante foo ma dem wax ak samay mbokk ba pare. xam nga fee ne waxoon naa ko fa waaye fii ñu toog nii circonstance yi nekkul benn ndax fa ma ko laajee woon ma tontu la fa ak fi nga poussé laaj ma ko fas yéeneetuma ci sama géeri dund di def lu ma sama patron di def loo te laaju ma samay mbokk. mais <laughs> laa wax de am déet. yow sànq rek mën naa ne soreeguñu yaa ma leeral fii ne ma sa patron fu la ne xoolal foofu ngay xool. waaw lu la wax loo loolu ngay wax. waaw léegi nag léegi sa patron dafa bëgg dugg ci gaal gi wax. waaw yow xanaa déggoo wax ji ba ma koy mhm. ak ak bi fii. Ah. ndax fii ak fee bu amee fii rek na fee kon am na ñaar waaw léegi sama patron moom ba may wax loolu te fee nangul naa ko woon waaye fii nag moom fas yéeneetuma di def loo xam ne sama patron dafa koy sant waxtaanu samay mbokk kay am déet. am déet ndax loolu dëgg la waroon dëgg àtte leen journaliste yi <laughs> am am déet <laughs> waaw waaw reetaan leen loolu waay. <laughs> Idi waaw lii sa patron moo ko décidé pour nga dugg ci gaal gi ak xale yi pare nga ci wala pareegoo ci. loolu la ñuy wax laajte. wallaahi taalaay fas yéenatuma. Mhm. benn yoon. Mhm. loo xam ne sama patron ma koy defal te waxtaanu ma mbokk. mbokk ah. nag nga xam ne laa waxoon fee. Idi xàmmeetuma la di. ma mais sa Seck bi rek. mais soo jógee guñu fi ñu toog di. balaa may ñëw li nga njëkk a. ubbee sa waxtaan fu ñu jëm. mais li nga njëkk a ubbee mooy sa patron lu mu bëgg bëgg nga ko lu mu la wax loo loolu ngay def. waaw lépp lu mu bëgg soo ba ca ngoon def fu mu la xool la foofu la ngay xool. sa patron décidé pour nga dugg ci biir gaal gi sensibiliser ko xale yi indiwaatal ko. waaye ma ne gars yi àtte lañu waaye. sa patron moo bëgg loolu waaw ba ma koy wax. ma ko doon waxee bokkul ak fi ma ko laajee fee laa ko nangoon waaye léegi fas yéeneetuma benn yoon benn yoon di def loo xam na sama patron daf ma koy def loo te ànduma ci samay mbokk mooy samay militant xam nga dama waxtaan ak samay militant ñu jox ma fa moo tax ma ànd ak ñoom nangu lii. sànq bi ngay wax ak man waxoo ne lépp loo ma sama patron wax damay xaar samay militant danga ma ne lépp lu ma wax fépp fu ma xooloo xoolu ma militant xooloo lenn danga koy def lool ci lim lay wax. waaw pour sa bopp yow personnel kon lii war nga ko mën a. waaw loolu maa ngi ko doon wax fee ca fee ba moo ko laajee. lan fee nga ma ko laajee waaye fii nga ma laajee lii fas yéene tu ma def loo xam ne sama patron dama koy wax tey waxtaanu ma ak samay mbokk <laughs> waaye ree leen loolu waay <laughs> waaye ree leen ko mu xam ne. yow ko xoromu nga waaw. ndaxte yow li ma wax fii ak li nga wax fii nii ba tey. waaw fii du fee fee du fii. ba tey ñu ngi ci plateau. waaw mais ba tey nekkuñ ci fañ nekkoon ndax fee ak fii ça fait sa patron li mu bëgg da dama ne sa patron lu mu la wax. laaj bi nga ma laaj sànq fas yéenetuma daal di dugg ci loo xam ne ma ci samay mbokk ndax kajoor kajoor laa te xaw ma géej du ma dem nag xool li sama patron bëgg ma koy def te xaw ma ne loolu daf may la. fee nga ma ko laajoon nangoon naa ko waaye fii nga ma ko laajee ma gis gaal gi moom fas ma ci dem te waxuma ak samay mbokk xam naa am naa ci droit. kon gaal gii la ma ki yebal pour nga dem dugg ci doo ci dugg. mais dama ne fi ma ko laajee bu doon fee la. gaal ga ne fa mën naa fay dugg waaye dama jóge ca fee ñëw ci fii waaye fas yéene tuma kon tamit def ko tamit am naa ci droit waaye ree leen <laughs> loolu waay mais indi yow ku neex nga waaw ma la lii sa patron moom moo la ko sant moom moo la ci wóolu yow la ci tàmm yow la ci doyloo ba tax mu teg la fee pour nga defal ko lii ndax dangay ngay dem wala doo dem lii la waaw ndax da nga gis kajoor kajoor bu mën fay géej xanaa nga dëkk Mbour rek ci département ba <laughs> loolu rek la waaye fee la ko waxee woon nangul ko ko waaye fii fas yéenetuma benn yoon def loo xam ne dama ci def ci sama patron laaj ma ko te waxtaane wu sama way mbokk tamit <laughs> yow xam ne fu mu la xooloo foofu ngay xool. waaw lu la ne defal loolu ngay def. waaw lu la ne waxal loolu ngay wax. waaw sànq waxoo damay xaar benn. temps ca fee waaw waaye ci fii fas yéene tuma ko kon fee façon naa ko fii fas yéene tuma <laughs>